ah liggéey cere de gis nga dafa metti moom dafa metti wax dëgg yàlla waaye dañuy sant yàlla comme ñun ñoo ko bëgg rek ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax ñun taalibi sëriñ Saliou lañu waaw dañuy sant yàlla liggéey mu cere ji lu ñu am cere ñu ko may ay doomu séeréer lañu cere mooy suñu liggéey. Mhm. chaque jour ñu ngi jaay ba tam dañuy jaay chaque jour foo laajte ko séeréer yi sakkanal usine jaay cere mooy fii téeméer nga lekk ba suur cent franc lekk ba suur chaque jour ñu ngi jaay. mooy suñu liggéey mooy liggéey daal moom la ñuy defar chaque jour moom la ñuy liggéey mais tam xarit daal ci lay gën a raw ci la ñuy am ay commandes yooyu. waaw am na sama client yi ñëw na am na ñeneen tamit ñoo xam tamit dañuy ñëw waaw ñeneen am na ñeneen ñuy ñëw sama client tamit dañuy ñëw dañuy ñëw jaay si ñun dañuy tey rek ku ñëw ñu jaay la suñu client yi tamit bu ñu ñëwee ñu nattal leen. am na ñoo xam ne ñuy ñëw jënd si am na ñoo xam ne dañoo commande ku commande bu si kanamee nga ñëw jël sa cere ñuy jënd bu si kanamee ñu ñëw jënd si waaw. waaw tey am nañu ay commande moom am nañu ay commande macha allah yokk rek. yokk rek ba yëpp ko waaye moom mooy suñu liggéey. ah liggéey cere moom xam nga ni yombut yombul te ñun amuñu ku ñu jàppale ñun suñu bopp ñooy dawal suñu bopp rek liggéey bi moom gis nga ko ni ñun ñooy suñu kiwu bopp moom. wax dëgg yàlla seddul ndax ba ma yeewoo 6 heures du ba tey maa ngi fii seddul depuis démb si guddi sax laay wax ba léegi seddul moom liggéey cere moom neexul moom seddul moom dem ba tey ñu ngi si cere ji di defar rek. ah metti na torop ndax dugub bi seer na laalo seer na. di ñuy tayee gas seer na këriñ seer na waaye sant yàlla rek. ah sant yàlla xam nga lu ñu tàmm ba pare te am na client yoo xam ne mënoo leen bàyyi ñoom rek ngay toog ñoo tax nga koy def am na ñoo xam ne soo jaayiwul ñoom dañu am problème ñooñu rek ñoo tax ñoo waaye cere moom bu njëkk ba amoon na xaas waaye léegi moo amatul xaas. xam nga loo tàmb di jaay rek mënoo jaay lu bon loo tàmb di jaay rek ah suturlu rek waaye doo doo ci génn moom. waaw ndax ñu ngi ciy suturu daal. njaay moom boo ko jaayee mu jeex nga suturu si rek baax na nga di ci am dërëm wala ñaar dërëm sax baax na ñu si sant yàlla bu baax moom. njaay bi bari na ñuy jaay bëri na dugub bi seer na mboq bi seer na wol bi seer na kilo bi 400 waaw. am dara bi nag mooy maanaam comme niñ koy jaayee ni mu seeree nii xam nga yow bu fekkee ñoo ñoo daan jaay ba mu seerut yow mënoo leen ko jaayee mënoo xëy xëy rek daggal leen ko. te di si am ay nit ñoo xam ne moom wax dëgg yàlla sëg nga ak ñoom jàmm ak salaam loolu moo tax boo jaayu ñoom dañu am problème <laughs> loolu ah di ñaan yàlla comme yàlla may nañu fekkee ko ak jàmm ak salaam di ñaan rek yàlla may ñu wér ñu tëdd yàlla yëkkati leen yàlla sàmm ñu sàmm njaboot yi ñoo ngi nii daal di jaay cere ji moom ñu ngi ko jaayoon defoon ko daaw rek fekkee déwén ñu baaxantal ko. liggéey bi fii waaw waaw ñoo ngi sant de. waaw liggéey bi moom mu ngi dox ndànk-ndànk moom alhamdulilah. bu dul comme tamxarit bi nii li mu nekk événement nii ak yeneen jours yi ça fait deux quoi yeneen jours yi moom da am ay clients spécial yoo xam ne chaque jour ñoom ngay walal xam nga par rapport ak tamxarit bi moom fête la quoi boobu si boobaa da ngay gis façon client bu nekk yuy ñëwaat yoo xamante ne waaw ñoom dañu wal chaque jour quoi. man nag ci affaire yu cere yi ñuy wax man cere léegi laa dégg ñu ne cere ku ko lekk da ngay feebar. waaye ñun suñu maam yu njëkkee man sama maam bi ma yar téeméeri at la am ak fukk ak benn bi ma yar maa ngi am fukki at ak juróom te moom daf ñu daan jox cere ñu reere ko mu reere ko bu ba setee ñu ndekkee cere ji ba suur dem jàngi moo tax ma déggee léegi ñu ne cere boo ko lekkee su guddee sa xol day tàkk loolu daf may jaaxal doo nelaw te liggéey ba la te liggéey ba la waaye mag ñi cere nga daan la sa doom mu dem jàngi école jàngi ba wàcc musul yóbbu xaalis te bu ñu wàccee dañuy suur këll heure bu añ bi pare ñu añ dem gontaat jàngi. li tax ma choisir cere damay doo mu séeréer sama yaay dëkk sawal Fadiouth ñu xam dugub xam cere lu àddina wëlbatiku wëlbatiku ñun cere rek lañu xam tam moom cere rek du ñu togg leneen lu dul cere. soo jëlee cere sotti ci àddinay tamaate àddinay sunguf. àddinay jumbo ah te jumbo yooyu yëpp baaxul ci xol baaxul ci siddit nga di ko def ci cere sotti àddinay diwlin taal diwlin bi ba muy saxaar nga def ko ci wëlbati ko daal di sotti lu du jeex du xaaj ci tamaate nga ñëw siim ko jox ko nit ne na ko lekk ci guddi gi bu guddee doo nelaw fob àddinay gerees def ca fooy nelawe doo nelaw togg dëgg day yem day yem de togg day yem dañu moytu diwlin ji nañu moytu jumbo yi ak sungufu jumbo yi ñuy lekk baaxul day indi estomac indi tension yàq bët yow mi jigéen di nga dem ba sa ba nga xam ne bii yow sa bopp di nga yëg ne amalu la benn njëriñ du la amal benn njëriñ ndax da lay sonal da ko togg nga fee ba sa biir di métti wala sa jëkkër jaru ko fi nañ def lépp mu yem def niñ ko war a defee dugub ji na set soq bi na set fañ koy liggéeyee na set perong ba na set tayukaay ba na set inde ba na set cin la la na set di nga lekk cere ji dara du la dal dara man sama togg maam moom laa yor ba léegi nag sama maam noonu la daan toggi bu toggaan baase tigadege dañ koy lekk ba suur te bu bës setee du ñu sonn bu ñu xëyee ndékki ba suur dem école dem ba ñibbi si te du ñu am problème pourquoi léegi ñooy cere day tàkk xol nañ xool niñ koy toggi ak li liñ koy def amul amul sens amul benn sens yéen nag yal na leen fi yàlla bàyyi rajo bi yokk lool ba ngeen yëg ko man de fu ngeen ma invité ma ñëw fekk si leen ndax li ci réew mi ñu war ko wax war nañ ko wax te gisuñu ñu ko waxee bari tey da ngeen a am sens fekk liggéeyu ma man sax dama yor magasin mais bëri na ci réew mi lu ñu war a wax ci lu jigéen ñi togge te jaaru yoon dañ bàyyi jumbo bi waaye te bàyyi sungufi bàyyi yokk diwlin yi bàyyi graisse yu bon yi amuñu sens amul sens ci kenn te ñuy defar seen yaram yi ñu dellu ci xobu maam yi